bu solo bi nga xamante ne mi ngi koy def ci tarixa diine yi amul tijaan amul xaadar amul laayir muy def liggéey bu exceptionnel boo xamante ne askan yu bëgg nañ ko Miss aussi de même kenn dégg ko ci dara de même que Aïcha waaye nañ gën defaraat toogaay gi mm-hmm. ay Amina dañ ñëw ci Mame Ndiaye Savon Sidy Diop dakaa way way bu neex ñëpp ne samedi day dem Almadi ngénte ngénte way bi ba mu demee nag ñu jàpp ko ci bunt ba vigile na ko doo dugg Mame Ndiaye dañ kaa kompaloo yoroon xaas bu bari na doon baatare Sidy Diop nag jamono gi nag maam mer na ba génn def def def def sorti maam mer na Sidi Diop woy na ko woy bu rëy waaye yaakaar naa ni fi mu toll nii sax giifaat na ndax Sidi woo na ko. woowaat na ko waaw mhm. Sidi woowaat na ko live na. Mhm. Sidi moom it def na affaire grandeur foofu. Mhm. parce que loolu Sidi leeralal na ko ni ko sax euh, man samay. ñi may ànd sama ñaari musiciens dañ leen a téewoon. parce que nii la demee nii la demee nii la demee. loolu la ñuy war rek nit noo mënti mel ci àdduna dalal teeyal situation bu excès. bu réagir naa la nga teey non <laughs> nit da ngay dal nit da ngay dal nit da ngay teey parce que eh, teey. nit ku la gën a tey ci àdduna kookoo la gën a muus mhm. te kookoo la ëpp ay résultat mhm. mhm. parce que déjà mi ngi nii wax na ci lu ne maam naka la mën a jógee foofu ñu téye ko foofu rek mu woote ay ay journaliste <laughs> commencé di wax di def kenn xamul c'est que maam nag maam ay situ boppam de maam dafa maam këb di rek maam woote waaw <laughs> xat gi lay na rek maam ne ay ca non yooyu noonu yëpp jaru woon parce que boo xoolee d'après man li ma dégg explication maam Ndiaye mhm. ay réservation table yi nga xam ne moom la defoon mhm. te boo defee réservation table yi boo duggee ci biir ngay fay mais nga xam ne moom lañ la war a jox pour nga dugg mhm. kon ko loolu réeroo la rek moom moo fa am videur bi nga xam ne dafa taxaw ci bunt bi moom itam liggéeyam rek lay def man la maam Ndiaye Savon taxul ñu bàyyi la nga dugg man la maam Ndiaye Savon taxul ñu téy la mais bi nga fekk liggéeyam lay def donte bu dee erreur ndax bi nga xam ne moo woy Maam Ndiaye mhm. te ba mu woy Maam Ndiaye jokkoo la moom xamu ko mhm. dafa jël décision woy Maam Ndiaye woy Bébé Eva mhm. boole ko ci ndax nee na maam da koo neex day def social ak lu ne nga gënañ ko ci ay kàddu Sidi Diop woy kii woy kële ñoo xam ne ay nitam lañu yaakaarul ci ñoom fukki dërëm kon daf ko neex mu woy Maam Ndiaye woy bi neex ko Maam Ndiaye ne ko damay ñëw ngénte si woy bi maam def déplacement dérangement sañ ca solu ànd ak ay nitam videur ba mu ko fekk même bu ñaar ñi nangoo keneen ko liggéeyam lay def dëgg la bu fa ñëwee parce que tey li war a wane ne maam am na fa table. Mhm. dafa war a dugg loolu gisu ko kon am na mhm. droit ne maam doo dugg même donte bu ñeneen ñëwee xëy nañ ñoom dañ koo def ci seen xol bu rafet wala dara mais ñoom seen liggéey lañ doon def mhm. waaye maam Ndiaye moom tamit waroon na tey waroon na bañ a xaddi di gedd di dem waroon na déglu siidu wala mu déglu ñeneen su ko defee bu ñu waxee mën na dugg ci soirée def la muy def nank baatere xaalisam bu dee dafa yéene woon pour may Sidi waaj baatere ñëw dem mais dineur ba tamit liggéeyam lay def parce que nit ñi lu ñu wax loolu pour man comme d'après ni ko sénégalais waxee kompaloo la mhm. soxor la iñaan la wala dara lool du dara maam Ndiaye ku ko xam ci teraanga la ko xam du dëgg moom ku dul Sidy Diop chaque jour mais maam dañ kaa complot maam moo waaw boo xee dañ ko complot man loolu gisuma ko ay complot yooyu maam moom ku ne xam na ne femme bu buri la moom bu meree lu ne lay wax. xam li naturel waaw xam nga maam <laughs> maam bu meree moom ne ak yooyu. Sidy mais videur ba fa doon nekk ak yooyu la mm-hmm. defoon. Mm-hmm. moom itam liggéeyam lay def parce que bi nga xam ne moom la ñu war a takk ticket bi nga xam ne moom lañ leen war a wone dafa neex de maam ne Sénégal fii amul ku ko xamul ñëpp ko xam <laughs> kon videur déglu li la nga taxaw ko moom xam ne na Mame Ndiaye Savon la mais lan moo tax muy wane ne nangam ñu ne lii moo war a tax nga dugg ak sa table. xëy na ah. foofu erreur moo am. léegi videur bi dafa doon topp li nga xam ne moom mooy liggéeyam la doon def. Mhm. maam Ndiaye xëy na moom mi ngi topp na ci célébrité am. Mhm. bu ñëwee ne nangam laay def. wala nii la demee damay dugg. maay di dooy dugg. Mhm. videur yow yaay diw waaye ñun suñu liggéey la ñuy def. xam nga loolu koy gis. ñu ne maay diw sama liggéey la ñuy def maam Ndiaye ku ne xam ne yéene lay demee amul problème xaalis ak Sidi. koo xam ne ci live ngay toog di yëkkati ay 1 million 300 mille di ko may ay nit kon yaakaar du dara ci yow tey muy mënoon na ko yónnee jox ko waaye maam moo nekk nit ku bëgg ambiance mhm. xam nga la doon bëgg bu yeewoo live la ma fa teg démb la ma Sidi bàkk ana jaay ko te eh, la wax Sénégal ku bëgg gis na nga ñëw almadi lii la waaw <laughs> léegi xam nga loolu bu ko defee <laughs> daa woote woon mais man mais man li ma ci li ma ci gis mooy mhm. jàngat bi ma am mooy Sidi moo a juum ci benn côté parce que waaw xam nga nee na ko damay ñëw ngénte si mhm. xam na ne maam Ndiaye dina ñëw waroon na koo jox loo xam ne maam Ndiaye bu taxawee ci porte bi rek kenn du ko téye Ah, parce que nag nit boo ko joxee cër danga ko mm-hmm. koy la bu la boo ko joxee cër mm-hmm. way ko woy bu rëy mm-hmm. vraiment way bu neex nag ba sénégalais yëpp kontaan ci mais mun la damay ñëw ngénte si war nga koo jox loo xam ne te xam nga ni fa mu jëm si am na ay gardien am na ay vigile am na ay leneen ak leneen war nga koo honoré jox ko loo xam ne bu egsee ci bunt bi du sax duñ ko téye tapis rouge dañ koy lalal mu xàll jàll xëy na loolu tamit sii di juum na ci côté boobu ñi visite comme ni mu ko expliqué kenn nit ku nekk tamit danga koy nangu li mu wax. Mhm. parce que solo nee na ay visite yu bees lañ fa teg nangam nangam loolu tamit mën na nekk. Mhm. erreur la rek mais moom moo si man erreur bi ci Sidi Diop laa ko mhm. parce que moom moo waroon a xaarlu Mame am na équipe waroon a taxaw. ci biti accueillir Mame Ndiaye Savon mu ex. parce que ñëpp xam ni loolu tamit mën na nekk tamit non dafa am a taxaw ci buntu bi. ak accueillir seen marraine. mu egg si fa comme ni mu ko waxee te Mame Ndiaye. waaw loolu la gis na gis na Mame na fa toj de. sañseem bi mu sañse tamit waaw sa sañse bi moom maam sa sañse yàlla sa sañse bi rek tax tax na duggoo bu <laughs> ma dóor de bu ma tala laay sa sañse bi rek tax na duggoo maam yow tamit lu xew foo ne moom daa sañse woo Sénégal gi yëpp maam lan mooy xam problème bi <laughs> maam li mu sol est-ce que seetlu ngeen ko <laughs> est que xool ngeen ko bu baax a baax a baax parce que nit ku nekk am na lu la jàpp nit ku nekk am na sa style. Mhm. vraiment maam Ndiaye ñëpp xam nañ ko dafa mën a solo. Mhm. dafa mën a sañse mhm. ku nekk nag ku dee dañ lay ber mais keroog moom dafa passé à côté. parce que li mu sol vraiment. ak en tant que maam Ndiaye Savon yaayu Serigne Fallou. waroon na demee parce que nit. ah mais day wane ne soirée la li mu sol tamit. jaaru euh, semi li gis nga rafet na. jaaru semi grillage soirée la de. grillage la sol sol short ak. débardeur xam nga loolu tamit du solo ah, Mame Ndiaye nit da ngay personnalité classe rafet na gis nga loolu noonu rafet na bu ko xale bu jigéen euh, Aïcha mi soloon wala yow nga mm-hmm. sol ko xam nga li ma la wax Aïcha kilifa la borom jëkkër la man du ma sol yooyu gàtt jeex na xam nga xam nga déjà Aïcha nangu koo bëgg <laughs> kon xam nga des na am na yaa problème yaa problème parce que mi ngi naan du sol loolu. Mhm. yow maam Ngoné bu nu la tegaloon loolu doo ko sol. Mhm. ah loolu dina ma ko génne doo ko sol en tant que maam Ndiaye sama xale yi di roy ci yow. xam nga tey ku ci nekk tey. comme li nga wax style style vestimentaire bi nga xamante ne yow da nga koy sa yaram li may sentir doo ko sentir yow la nga nga simple xam nga sentir maquillage man su may <laughs> lu ci ëpp da nga may yërëm. Mhm. xam ku ci nekk loo ku ci nekk tey. ci nit la c'est la personne en soi la personne en soi comme la maam euh, euh, xumbaay beeg rumbaay boo xoolee sànq bu ko sii di wàccee lan la wax. Sidi lu ma jàppoon bàyyi naa ko tey laa la gën a jàpp nga xam ne kon maam mi jàppul dara ci àdduna ba Sidi ne ko euh, euh, juin vingt neuf euh, juin Zénith yaay sama invité mu invité ko France kon xam nga ne tey kon macha allah Sidi Diop mooy li ma doon jaay waaw li ma doon wax rek Sidi xam na ni def na erreur ci benn côté certes mais rectifié na ko côté boobu mais mais xam nga mhm. xel moom par yenn dafay day fattu xel dafay fattu mais Sidi Diop bu demee jox na tey bu ñëwee mu teral ko sargal mais maam moo waroon dëgg yàlla moo waroon tey ba xaar Adamo wax na ko ko ba déglu nday mbili gi moo ne yàgg ngaa laajte mbay peex mbay peex nag daa mel ni wax na de extrait bi daal laa seen Mbaye Pekh askanu Sénégal ñëpp ngi doon laajte mbay Pekh kañ lay rejoindre <laughs> son excellence waaye itam dafa ay kàddu yam am solo Amadou Ba laa àndal waaye bu ma soxla wee ma dem. man nag man nag Mbaye Pekh laa àndal li mu wax ni dëgg la Amadou Ba laa àndal ndax Mbaye Pekh Ablaye Wade. waaw xam nga ne Mbaye Pekh Macky Sall xam nga yow moom la wax nee na Amadou Ba àndal. bu ma jomaay soxlaa ma ñëw waaye jomaay du ko soxla kon du ñëw. ko soxla parce que xam nga la moo tax ma jogaay du ko soxla. jomaay moo soxlawul ay ay ay griot. jomaay nee naa la su bëggee ay gir yooyu ñu ko bakkal ay maamam ndax géwél balaa moo neex muy sa géwélu judd du dëgg géwélu ndakaaru bi nga xam ne ne fu tooy mm. ñu takk daka naan na jomaay soxlawu lool mm. bu soxlaa tey ay